suñu politiciens yi xàmmee wuñ fu ak farata waaw jamono ji daal a wàcc nag ca yoon boobee nga xam ne daal ca la ñu nekk bi nga xam ne nag ñoo di xamal ne nag man daal nag moo dee nag Idrissa Seck Kajoor gannaaw nag sart yi nga xam ne daal tegoon na ko ngir mën a dem ca dialogue boobee yéenekaay bi di xamal ne kay Mamadou Lamine Diallo mi xam ne daal moo jiite teg la boobee ne du ca dem waaye ki nga ne itam moo di kan waaye ñoom moom duñu wuy ji ca boobee jala l'observateur di ñu xamal nag ca jamono jooje Macky Sall kay mi ngi woon fi nga xam ne nag moo di Dubaay waaw gannaaw la nar a taxawal ban xeetu gouvernement lay doon léegi critique yéen kaay ñu xamal ne nag jamono ji kàddu yi nga xam ne nag Idriss Seck yëkkati na ko ki nga xam ne nag moo di Mimi Touré cadence borom greffas yi daal dina ko koy tontu daal di xamal ne daal Idrissa Seck jamono ji li nga xam ne daal moom la war a def moo di félicité ki xam ne naka moo di président Macky ndax mu neex ko mu naqari ko Macky mooy jiite waa réewum Sénégal laas dañoo xamal xam ne daal ñoo nekkee ci gouvernement bu Sénégal daanaka daal tontante gu tar gu metti lañu seetlu ndax di jamono ji am na ay bopp yu bees yoo xam ne ñoom daal bu dee wàllok tont lu ni mel dañ caa saf-saf jàppali di ñu xamal ne nag jamono ji maître Madické Niang borom toj naa ko rajax démb daan dëggal ne lettre bi nga xam ne daal moom maître doon wax mel na sax maître Madické Niang da koo suur dogal bi nga xam ne daal waa Sococim jëloon nañ ko waanaam maanaam tonu ciment bi ñu daat ci yokk lu toll ci 3500 loolee nag jamono ji yéenekaay bi dañu xamal ne Alioune dañu bëgg téléphone portable yi rawatina connexion ba waaw yéenekaay bi dañu xamal ne docteur Amadou Diop di xam ne loolee baaxul ci xale yu ndaw yi waaw xale yu ndaw yi nga xam ne daal dañ leen di teel jox téléphone yi ñuy kat ci kat am na ci ay xale yoo xam ne daanaka duñu nelaw te duñu bouger loolee nag mën na leen a indil sax ay jàngoro waaw ba ci mel ni jabet waaw mën leen a indil yeneen jàngoro docteur bi di ñu xamal ne waajur yi nga xam ne daal seen wiif yi dañ ko bàyyi muy fay fay xale yi di la ca def lu leen neex loolee daal war nañ cee mën a fexe ba ànd ci ay saafara lii nga xam ne daal moom la xale yi nekkee baaxul ci ñoom du xale yi donc xadiña connexion ba du fay soxna maam Fatou Kébé asusi la ñii daal seeni connexion duñu